aca góorgóorlu Djilass Gandia Fama Fissel Gandia moom mooy borom ngeen bulu bulooli góorgóorlu moo féetee seen ndeyjoor wala moom mooy borom ngeen bulu rouge bi rakk Ndoundi Fall baa ngi noonu góorgóorlu palaake na ko sànni ko laa ilaaha illallaah doole doxul jaamu de hee góorgóorlu góorgóorlu góorgóorlu na ba daan waaja